asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen suñu mbokk journaliste yi di nuyu également peuple sénégalais di tàmbalee samay wax di d'abord euh, jaale ñi nga xamee ne ñu si bëri ay tout tànk lañ te ñàkk nañ seen bakkeen ci manifestation yu passé yi malheureusement ni ngeen koo xamee ñenn ñi sax étudiant la ñuy euh, donc may jaale également le corps enseignant te également les étudiants ci li nga xamee ne ñàkk nañ ko li li ko waral nag dafa ñëpp xam nañ ko ndax Sénégal jàmm lañ ko xamee te ñun jàmm la ñu bëgg bu ñu soneen heure bi ñu ngi dem ci liggéey yi mais malheureusement gisuñu loolu Sénégal ndax ñenn ñi bu ñu nee dialogue ñu ne dem leen dialogue ndax loolu mooy jàmm mais ñëpp xam nañ ne tey Sénégal leen la ñu soxla mooy dem ci élection yi nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a rafetee en tout cas conseil noonu la ko waxee. donc pour vous dire et réitérer que li gars yi euh, waa FC 21 wax ñu demuñu dialogue ndax dialogue boo xamee ne ci forme bi comme ci fond bi doxul boo fa demee je pense que li fay jële xam nga ko ndax moom mooy wax moom président moo naan élection inclusive mais bala nga ne donc mooy li ñëpp bokk mais mënoo ne élection bu ñëpp bokk te waxuloo dialogue bu ñëpp bokk mais am na ñoo xam ne mënuñoo bokk dialogue ndax bu fekkente ne on n'a pas les mêmes objectifs parce que candidat yi mënuñu ne ñii la conseil wax dañuy dem élection ngeen bëgg leen booleeg ñeneen ne dañu waxtaan je pense que xam na ne waxtaan mënu fay am engagement ci loolu di ko ñaan juste mu yërëm Sénégal ndax heure bi gars yi sonn nañu et la preuve ma ci profité également di ko lancer appel ak les autorités université yi bi ñu ko tëjee ci présentiel yàgg na xale yu bëri ñu alors ko ñun enseignants yi les gens sont prêts à aller au delà de l' enseignement virtuel dem toog ak étudiants yi jàngal leen dafa leen donc pour pour ma résumer heure bii lenn rek moo mën a am ci Sénégal bitim réew nawluwaat ñu ñu naw la suñu bopp ngelawaay nañu bàyyi lii mu lii mu teg ko ci suuf ñu dem élection le ministre de l' intérieur Ali wax na ko donc man dama gëm ne ba tey avant le deux élection c' possible loolu lañ koy ñaan loolu la ñaan waa réew mi ndax Sénégal jàmm lañ ci bëgg buñ ci leneen.